daal benn affaire laa xam ne. Mhm. ci contexte bi. merci kilifa bi Dieye. Mhm. merci parce que si dëgg moom dëgg gën a limpide ci àdduna bi dëgg dafa mhm. limpide ci le terme cest dire que maanaam day leen naññ te du mu neex la mu naqare doo si mun dara dëgg dëgg la. alxaq du noonu. Euh, Adja dialogue pour lan la pour déggoo. waaw ñu ne waaw point yi d' accord nañ ci mais am na yoo xam ni d' accord ci. Mhm. kon dialogue bu baaxul. ça vous fait kon dialogue bu baaxul. dama gis nga ree. ça vous fait rire waaw bu dialogue bi jaaroon yoon dañuy d' ci lépp. dañuy d' ci lépp ci lépp moo la lan l' lan mooy essentiel mooy troisième mandat warul am. ñu ne non waxtaan nañu ba pare mais troisième mandat bi d'accorduñ ci quoi dañuy bàyyi ñu àtte ñu te constitution wax ko mu leer nañ te loolu mooy principal point bi benn. Mhm. bi ci des. mais xanaa wóoloo conseil constitutionnel kon. du néew ma foofu. parce que allah kulli après moom mooy àtte. oui non mais mais mais constitution bi li mu wax. ñu bind ko mu leer président wax ko kàddu président moo intéressé président ne ma ne bu ma defee benn mandat bi ci topp il va falloir partir man kadd googu j'ai envie que tous les ju journalistes du Sénégal sans prétention nag maak ñoom ñoo bokk ay am di jàmm lañu mais j'ai envie que journaliste Sénégal wala presse sénégalaise teg débat bi foofu monsieur le président vous l'aviez dit nañuy wax président Sall ne ko monsieur le président vous l'aviez dit ak égard bi ñu am ak ak respect bi ak warma bi et vous faites quoi de ce que vous nous aviez dit. personne ne l'a dit ko koy fàttali. non non j'ai pas entendu un journaliste. si dire. mais si ko koy je suis désolé dañ ko koy fàttali ba fàttali ko ko le son livre sax le Sénégal au cœur. en plus di wax monsieur le président vous l'aviez dit ñun ñëpp ñuy waxee ci sens boobu xamalu nga lu tax. xam tax je vais m'expliquer xam nga lu tax. non xam nga tax dañu nekk ci contexte boo xam ni dafa am fu ñu départ ci waxtaan ñu ne violence bi fi mu toll nii te mu am luy waral violence boobu y a rien de plus violent que de dire à tout un peuple de millions de personnes lii moo fi ne aw à jiite yow sa kàddu c'est unique. nii lay demee nii laa tëddee ñu ne ok newul sax waxuma sax waxi promesse campagne mais yaa ngi exercer ci biir exercice boobu nga ñëw dindiwaat kàddu boobu ña nga àndal waxoon ko waroowaat ak kàddu boobu y a de plus violent c'est abject c'est immonde c'est choquant alors quand on de dialogue dialogue boo xam ni moment bi muy am tension ngi continuer di am prémisse tension di continuer maanaam fay tàkk-tàkk bi fay na mais mu ngi tàkk toujours parce que lan mënoo def dialogue te que contexte dialogue ba quelqu'un d'hyper important ca tension ba newu fa su fa newul. mais il a refusé oh, non non non su fa newul su dee par exemple man par exemple dama doon wax ne non Sonko bu demul na yónnee wala bu fekkee demul comme moom jàpp na ne warut a dem te mu teg ko fenn foo xam ne mën naa ko comprendre. mun naa ko comprendre waxuma ne d'accord ma dama ne mun naa ko comprendre moo di ne munoo ma teg pistolet ne ma ñëwal par contre am na ki bëgg jaloo tey woote jaloo dëgg ci yaqin bu profond munoon na def lenn ne non dama bëgg ñëpp ñëw ñu ne ko ah mais waa ji nee na du ñëw mu ne lan moo tax du ñëw ñu ne waaw parce que nee na dañu jàpp ay njitam nee na dañu barricade këram ma ne eh jóge leen kër jàmbur eh ñan ngeen lu ñu def noo dañ doon kii kii bàyyi leen leen ñu dem Ousmane ku bëgg waxtaan dëgg noonu lay def. pour yow dans ces condition bu ko defoon. est-ce que Ousmane Sonko dina dina dama ne yow nit nit la bu fekkee maag yow seq nañu wóoluwoo ma nga ma wax nga wax bu ma tegee luy tax nga wóolu ma daa ma wóolu benn en passant mais nekkatuñu foofu ñu ngi ci pare nañu douze points d'accord quatre non je donne un autre exemple le bulletin unique. moo gën a économique. dañu wax dañu sonn dañu am problème mu xaalis dañu war a defar dëkk bi dafa metti bulletin unique lu tax le pouvoir en place mënu ko nangu. nee nañ la la présidentielle. lu tax mënuñu ko def moment bi du xa du xaalis bu ñuy dépensé du ñu def moins qui peut le plus peut le moins en passant. comme ça maanaam sur les points de désaccord da ngay mm. boo fekkee da nga da nga observé da ngay gis ne que la sincérité bi nit ñi di yaakaar soxla ko trop pour am confiance davantage on l'a pas. et quand on regarde. su ñu ñëwee ci euh, yaa ngi koy wax léegi nii euh, candidature euh, président Macky Sall troisième mandat on rappelle toujours qu'il ne mu ne dafa am li nga xamante ne moom mooy planning am moom lay topp c'est pas encore le moment de se prononcer donc une situation boo xamante ne daanaka leeragul même su dee tout montre le contraire Emmanuel Macron va quitter le pouvoir en 2027 inchallah c'est clair est-ce que quelqu'un ici peut imaginer waa France toog naan bon le président n'a pas encore dit. c'est même pas comparable. non non non mm -hmm. il paraît que même, un proche avait avait soulevé mais. le camp de Macron ci boppam ñoom ñoo ñoom ñoo jóg dal. dal ci kaw ça ça ça veut dire que ça mm-hmm. doit bu dee lu baax la ñuy wut. Mm-hmm. du ñu ñoo dem jël cinquième république jël seen constitution seen constitution ñëw appliquer ko bind ko di tari damay wax benn affaire bu simple. xam nga bu fekkee ni dañuy def. par exemple waxtaan waxtaan bi dafa am dafay am euh, daaneel mais day am day am incidence positive mm-hmm. bu dee waxtaan ba baaxul day am insidence négative négative Sénégal dañu toll ci guuta goo xam ni faw nu wax dëgg bi wax état bi fi nekk ne ko d'accord vous nous dites que mais malheureusement li ngeen noo wax ak lii am j'ai suivi le président la République bi muy wax ci dialogue bi sànq quand on regarde quelqu'un nga xool entre contenant ak contenu le mal que j'ai éprouvé na ma yàlla baal ak warma bi ñu am ci moom mooy j'ai l'impression que malheureusement malheureusement te lu ma craindre la tamay ñaan yàlla def jàmm ci réew malheureusement fi ñuy dem baaxul d'accord